Euh, man déjà euh, magam euh, bu góor moo woo démb ne ma ah kii problème am na de ma ne ko lu xew mu ne ma suñu sœur Amidia moo nekk jamono ji ci urgence hôpital Abass Ndao ñun famille bi sax dañ ko doon nëbb waaye xëy na mbir mi dafa dem ba ëpp doole ñu xam ne mënuñu ko nëbb moo tax ñu wax ñu ko donc déjà man maa ngi interpellé état du Sénégal gouvernement du Sénégal ministère de la santé maa ngi interpellé administration pénitentiaire naka la ñu mënee téye doomu jàmbur yaayu jàmbur mu feebar ñu koy nëbb sa famille c'est tout simplement inacceptable maa ngi koy ñaaw lu ba fu ñaaw lu yam maa ngi koy dénoncé lii du yëfu nit un état ne se comporte pas comme ça muy benn euh, mu xamal ma nag ne euh, Euh, dañoo euh, dugal urgence euh, suñu sœur Ami Diab et dafa nekk ci situation boo xam ne dañoo détecté hyperglycémie hyperglycémie boo ko déggee daanaka mooy diabète ci gàttal ñu ñëw tey massawu waa këram ñëw tey massawu suñu yaay massawu suñu ay sœur suñu ay mbokk yi nga xam ne ñun ñoo bokk ak ñoom suñu yaay suñu jigéen suñu sœur Ami ginnaaw massawu leen di ñaawlu li nga xam ne moo xew fii tey kàddu bi benn la dañ leen jox amidia mu ànd ak bakkan mu wër péng du dëgg du yoon ñu ñuy delloo amidia boo xam ne du ànd ak bakkan wala mu ñàkk wér-gu-yaramam du dëgg du yoon balaay gàcce deen ciy fekk nañu bàyyi amidia ak ñu mel ni amidia mu génn damay fàttali ne mbokk yi amoon na kenn benn ndaw bu ñu jàppoon mu dëkk ngeexox ñu tëj ko kasu mbuur ci kasu mbuur bi la deewee néew lañu delloo ay waa këram bugguñu ñu delloo ñu néewu Ami ja bugguñu ñu delloo ñu Ami Dia bu gën a feebar comme ñoom jàpp nañ ko sosal ko sosal ko ba pare jaay ko doole dugal ko ci kaso ñu naan déet mënuñu ko yor yorin bu mucc ayib ba mu feebar seen loxo nañ ñu ko delloo nañ ko delloo suñu yaay nañ ñu delloo Amy Dia comme ñoom mënuñu ko yore ba mu feebar seen biir mu am si jabet nañ ñu ko delloo ñun dinañ ko toppatoo nu mu waree et lii ça disqualifie l'État boo tëyee doomu jàmbur góog góor ak jigéen mag ak ndaw na nga ko yore nu mu waree waaye nga toog yore bakkan xanaa xar sax boo ko téyee doo seetaan ba mu feebar ah xanaa ginaar sax boo ko téyee doo seetaan ba ginaar boobu feebar naka ngay yoree bakkanu doomu aadama ak ni bakkan fooree bakkanu doomu aadama doomu jàmbur sëru jàmbur yaayu jàmbur nga yore ko ba mu feebar sa loxo xanaa hyperglycémie day ñëw rek xëy ñëw mais hyperglycémie euh, du loo xam ne day daanu day raam di raam ndànk-ndànk ngay gis symptômes yi xam ngeen li lu muy wane ne que la politique carcérale est mauvaise nooy téye ay doomu jàmbur te régulièrement d'accord doo leen xool doo leen ausculté régulièrement les prisonniers dañ leen war a xool buñ ko defoon kon hyperglycémie bi duñ fa toll. kon dinañ gis ay signes ay symptômes ay màndarga yoo xam ne day wane ne ah bu ñu seetaanee kii ci jabet la jëm donc euh, suñu yaay suñu sœur ami Dia dafa continuer nekk ci kaso bi di xeex xeex bi jël beneen forme fu mu nekk nii mu ngi ne fànn ne lii mooy la politique carcérale de l'État du Sénégal nekkul di toppatoo prisonniers yi nekkul di leen di examiner nekkul di toppatoo seen wér yaram ba ñu naan hyperglycémie nañ ñu delloo bakkanu ki nga xam ne moom mooy Amidia on leur a donné une Amidia en bonne santé mu ànd ak wér yaram vivant buñ ñu ko delloo mu ñàkk bakkanam donc nañ ñu ko delloo nañu nañ ñu delloo yeneen Amidia yëpp yi nekk ci kaso yi góor ak jigéen tappale bi dafa doy jaay doole bi dafa doy noo mu ne wax ci sa discours ñaar fukki yoon xaw ma fanweeri yoon baatu pardon baatu réconciliation kenn xamatul ñaat yoon la ko wax baatu pardon maanaam baal baatu réconciliation maanaam jubowaat nooy waxee loolu ba pare di téye encore tey ñu mel ni Amy Dia baatu réconciliation dafa war a ànd ak baatu justice justice mooy lan nañu bàyyi détenu politique yi ñu génn baatu réconciliation du baat rek du kàddu rek jëfin la pardon du baat jëfin la jëfin lan mooy ñi ñu tooñ sosal leen at at ak gën wàll ñaari at ñu tëj leen xañ leen seen mbokk seen doom nañ leen bàyyi balaay gàcce di am ñaaw na ba noppi de Macky Sall nag mooy tànn ndax day gën a ñaaw am déet ñaaw na ba noppi nañu bàyyi ami Amidia buñ ko bàyyiwul dina gën a ñaaw ñaaw na ba noppi yaa mille détenus bu buñ leen bàyyiwul dina gën a ñaaw moom nag mooy tànn ñun nag dootuñu nangu di leen di jox suñu ay doom ñu ànd ak bakkan wér péng ba pare ñu ñuy delloo ay xotti nit ay néew dégg ngeen yaayam nee na bu ñu ko doon peese tey 40 kilos wala 50 kilos du ko mot ngeen foo ne dëgg la ngeen foo ne yoon la ñu teg ko fan ñu teg ko fan kuñ ko defoon sa doom du la neex ma ne Marème Faye Sall soxna ci ki nga xam ne moom mooy président Macky Sall buñ ko defoon doomam Amadou wala doomam bu jigéen du ko neex bu ñu defoon doomu Marème fay sàll wala doomu Macky Sall ni Macky Sall di def nii suñu yaay suñu sœur amija du leen neex ku nekk na ko xool rawatina nag ñu teg ko ci ay tappale parce que bu fekkoon sax Amidia dafa dafa tooñoon ñu ne waaw et encore même un criminel a droit ma ne criminel sax bu gën a bon ci àddina bi dafa am ay droits te dañ ko war a sàmm Amidia n'est pas une criminelle c'est une résistante Amidia n'est pas une criminelle c'est une patriote aji bëgg réew la aji bëgg askan la elle n'a commis qu'un seul crime bëgg bëgg réewam bëgg askanam bëgg fal Ousmane Sonko cinquième président de la République du Sénégal bëgg Pastef ñu teg nguur gi ci loxoom loolu mooy son loolu jar na ñu koy teg ci biir kaso di ko fa tëyee ba muy am diabète ba muy am hyperglycémie ba mu fond dafa seey dafa peer Ami Dia bu doon pëna dañuy wax ne instant dafa peer gisuñu ko waaye gëm nañ yaayam dafa peer bakkañ kañ nañ ko bàyyi mu génn dans les meilleurs délais bu dee am na fistinu xol bu des ci président Macky Sall na bàyyi Amy Dia mu génn balaa moo gën a ñaaw na bàyyi Amy Dia ak ñu mel ni moom tous les détenus politiques nañ leen bàyyi ñu libéré leen. lii mooy suñu taxawaay buñ leen bàyyiwul. Mhm. buñ leen bàyyiwul. bañ ñu ñu si bañ ñëwaat fii pour def manifestation fii ci buntu hôpital bi wala ci buntu kaso Amy Dia. ndaxte jar na ko ndaxte toog ne patt di seetaan di muñ di jooy jooy yi dafa ëpp ba Amy Dia ñàkk bakkanam duñ ko seetaan ma ne. car na ñu ñëw fii buñ ko bàyyiwul dans les meilleurs délais accord ñu manifeste fii buntu hôpital wala buntu kaso bi. ndaxte ku mu nekkoon sa mbokk doo ko seetaan. ku mu nekkoon sa mbokk doo ko seetaan amnistie bi du ma ci wax lu sori. dafa mel ni loolu nga ma bëgg a laaj. bëgg laaj sa xalaat du ci wax lu sori. bu ma jotee document bi naa ci wax waaye lenn rek laa ci mën a wax. lenn rek laa ci mën a wax. naka ngay waxee naan amnistie te amnistie ñi koy def dañoo bëgg fóot xol yi raxas xol yi jàmm dellu si ci réew mi ba pare ngay jàpp ku mel ni Amy Dia naka lañu ñu bëggee ñu dem ci amnistie te du ñu toroxal ni ñuy toroxalee ami Dia ma ne jàmm du ci kàddu du ci bind amnistie du ci voté loi amnistie jàmm ay jëfin la ay jëf la jëf mooy nattukaayu dëgg du baatu amnistie du voté loi jëf mooy nattukaayu dëgg bu dee ñoom amnistie bi mu ngi seen xol dafa war a commencé bàyyi Amy Dia ak ñu mel ni Amy Dia mu mel ni sax chantage lañ ñuy def comme ñoom Amy Dia ñu ngi ci biir kaso bu ngeen d'accordulee ak amnistie bi duñ leen génnee et ce chantage est ignoble ce ce chantage est abject ce chantage est abject dafa mel ni fu mu nekk nii ok mosal naa leen 300 génnee naa 300 li ci des nag ci détenu politique yi ñu mel ni Amy Dia bu ngeen buggee ñu génn da ngeen di nangu voter ànd ak amnistie bi c'est un chantage. c'est un chantage parce que xam nañ ñoom Amidia fu ñu toll ci ñun xam nañ Amidia fu mu toll ci yaayam c'est un chantage et c'est abject ñu ngi koy dénoncer li ci des moom bu ci kanamee bu ñu jotee documents yi dinañ wax waaye c'est un chantage dafa mel ni chantage la nañu bàyyi Amidia libérer Amidia nañ ko may pertem libérer Amidia libérer Amidia libérer Amidia libérer Amidia libérer Amidia libérer Amidia Libérez Amidja Libérez Amidja Libérez Amidja Libérez Amidja Libérez Amidja Libérez Amidja Libérez Amidja Libérez Amidja Libérez Amidja Libérez Amidja Libérez Amidja Libérez Amidja Libérez Amidja Libérez Amidja Libérez Amidja Libérez Amidja Libérez Amidja Libérez Amidja libéré Amidja libéré Amidja libéré Amidja libéré Amidja libéré Amidja libéré Amidja libéré Amidja libéré Amidja libéré Amidja libéré Amidja libéré Amidja libéré Amidja libéré Amidja libéré Amidja libéré Amidja libéré Amidja libéré Amidja Libéré Amidja Libéré Amidja Libéré Amidja Libéré Amidja Libéré Amidja Libéré Amidja Libéré Amidja Libéré Amidja Libéré Amidja Libéré Amidja Libéré Amidja Libéré Amidia Libéré Amidia Libéré Amidia Libéré Amidia Libéré Amidia Libéré Amidia Libéré Amidia Libéré Amidia Libéré Amidia Libéré Amidia Libéré Amidia ñu ngi fii ci Abass Ndao ci ki nga xam ne moom mooy euh, suñu mbokk yéen ñi seetaan Sans Limites TV ñu ngi fii ci buntu hôpital Fann ginnaaw euh, mère euh, Amidia mi nga xam ne nag euh, boobu ak léegi dafa defoon nga xam ne moom mooy malaise nga ko fi andi honorable député Guy Marius moo ñëwoon daal di koy seet si daal di koy jéem a taataan ay ki nga xam ne ma mooy coogo démb ak léegi mi ngi woon ci cheveux boobu donc ñu daal di seet si nga moom mooy Guy Marius Sagna voilà honorable ñu ngi noo def. voilà on a mi ngi lay wax suñu yaay ba pare. waaw kon ñu jóg ko ana tonton après nga tànn si kàddu yaay ñu ngi lay ñu ngi lay nuyu. ñu ngi leen di fàttali tur bi yaa ngi yaay Abi Diagne. Euh, tey ndax gis nga sa doom ci ban état de santé la nekkee ginnaaw malaise bi ñu waxoon ne daf ko def. ba ñu andi ko fii ci Abass Ndao. gis nañ ko nanguwuñu sax euh, yaayam bi. sama grande sœur bu dugg ak euh, ñaari sœuram yi man rek maa dugg gis ko. noo ko fekkee. boo ko pesé woon tey xam naa ne du mat sax 40 kilos waaw yaram mais fi mu ne nii boo woon tey matul 40 kilos. lan ngay euh, interpellé autorité yi boobaag léegi gis nañu ñu bàyyi ñenn ñi moom sax ñu bari dañu annoncé ne ñu ngi koy bàyyi waaye ba léegi dama bi ñu annoncé ne dañ koy bàyyi vendredi boobu fa la ñuy yendu ba 9h ci guddi. sonn ba bëgg a dee ba ñibbee da sax dama feebar waaw booba léegi ñu xëy xëy rek ñu ni suukaram dafa yéeg ba kaat ñu jaaxle lool lool lool lool nekk impuissante mënuñ ci dara dara dara boo ko seetsee léegi nangu nanguwuñu sax ñëpp dugg kenn rek la ñuy nangu mu dugg waaw sœuram yi dañu ñëw frère am yi dañuy ñëw mais duñ ko gis lan ngay wax autorité étatique yi ñu lay seetaan ak ñu lay déglu. te xam ni rek jiñ nañ ko loo xam ne defu ko du benn terroriste koo xam ne ñemewoo sax rey mbóot dëkkandoom yëpp seedeel ko mu nekk ku ragal koo xam ni yem ci loxo loxoy waajuram kenn mësu koo xamal bari dugg dugg kenn mësu koo xamal dara dul toog jàpp njàmbaram liggéey wàcc nekk ci néegam xamaluñ ko dara dara dara lu ñaaw accusation yi diis euh, ñëpp ko wax ah, muy presse beeg ñenn eh, ñi doomi yaayam lan nga xanaa rek euh, nekk impuissante rek ndax nit duñ jiyee sa doom loo xam ne yow wóor na leen kii defu ko ah dañ ko ëpp doole denc ko ba muy bëgg mat ñaari at ndax léegi at la ak juróom-ñeenti weer dañu tabaski ba teg si ñaari fan ñu ñëw jëf si ko ci kër ga waaw booba léegi nag ñu dund bu metti frustration bu méttee métti du ñu dund te mënuñ si dara waaw. ñu lay jaajëfal ñu ak Adja dafa am malaise dégg ngeen yaayam li nga ne xam ne jeex na jël ñu jël rek ñi nga xam ne ñoom ñooy famille nga présenté wu wax lan nga doon ci soxna Ami. salaamaaleykum man la faatu Diouf ah, daanaka Ami mag la ci man yaay la ci man lépp la ci man moo ñu yar ñun nag xamuñu ci moom lu dul baax ak nangoo liggéey ak respecté julli ak respecté ay waajuram. ñun nag dañuy woo communauté internationale bi ñu ngi cry deeply inside we call all of opinion of the international parce que lii metti na torop boobu ba léegi lu mat ñaari at daanaka noo gis sa njaboot metti na te xam naa ne liñ koy jiiñ wallaahi amee lañu àq ba ci kanamu yàlla man sama doomu daw sa dane ma taami ja te mu ragal mbóot ku ragal mbóot nag nan lay nan lay nekkee terroriste terroriste yaa ngi tërë ñi ñuy terroriser ñun ñii la ñu terroriser terroriser mooy koy terroriser nit yàq ay xalaatam yàq ay nelawam ñun buñ leen gisee ci télé bi sax suñu fit du ñun ñoom ñun ñun ci boppam dañ leen a ragal ñun ñu ñuy jiñ terroriste ñoom ñooy terroriste na ñun dañ leen a ragal ñun daal yaa ngi ñaan yàlla ñu ñu bàyyil ñu am jota delloo ko sa suñuy loxo parce que moom dem na ba feebar ñu jox la ku wér péng nga dem ba di ñu ko delloo mu feebar xam nga ne loolu metti na ba si kanam yàlla honorable député Rama ñu ngi lay nuyu honorable euh, sa teewaay tey fii ci euh, Abass Ndao ngir seet si état de santé bu Amidia euh, lan nga ci mën a wax ginnaaw bi nga duggee ba génn di demander que ñu libéré Amidia cette femme elle est ñëpp xam nañ ko le pire c'est que Sénégal entier xam nañ ni du terroriste xam nañ ni lu ko jiñ du dëgg mais pour ñu libérer ko c'est problème pire ñoom ñu ngi bëgg a demander amnistie pour ne pas aller en prison pendant ce temps là ñi dee doomu jàmbur yi en prison uniquement pour mun a faagaagal benn nit kooku léegi dañ ko tëj mais nañ libéré Amidia Amidia nañ ko libéré parce que elle est malade elle est moom bii dafa sonn kon nañ ko libéré bu dem këram parce que munoo wax ne kii elle est coupable d'une chose yow xam nga ni elle ne l'est pas le Sénégal le monde nañ ci xam ne lu ñu koy jin du dëgg mais malgré ça pour sauvegarder sa sa orgueil sa dignité nga continuer di di ko tëj foofu noonu mais à quelle fin loo ci am amoo ci ndam amoo ci dara kenn taxul nit ñi jox la cër taxul ni ñuy am confiance yow taxul ni ñuy wóolu la donc libéral nit ñi ne sa resque que au moins pour nit ñi ne au moins kii am na au moins euh, comment dire ça maturité xam nañ ni fu mu nekk ni fu mu jëm que c'est bloqué que tout est bloqué tout est tout est tout est amatul fu muy dem kon am na léegi maturité am na au moins clairvoyance mu nekkaat nit nañu nekk ay nit te tout ce qu'on demande nañu nekk ay nit te ñu bàyyi ñoom di bëgg a sauver leur parce que ici y a rien à sauver y a rien à sauver parce que ñoom boo gisee ñuy ut am ah, kii amnistie xam nañ fu ñu dugal la xale doomu jàmbur yi que c'est pas normal kon nag mieux vaut tard que jamais ko libérer bu génnee fii nii bu demee ba faju bu génnee fii nii nañ ko libéré bu dem directement këram bu dem noppaloo ko. d'accord est-ce que ngeen ko gis. man jotuma ko gis je suis venue j'ai même présenté ma carte de député mais on m'a dit que je pouvais pas la voir. waaw alors que am naa permis de visite boo xamante ni war naa ko mën a gis te aujourd'hui c'est mardi normalement avec ça avec le permis et avec mon statut de député j'aurais dû la voir mais. dañ ko isolé mais c'est pas normal. voilà mu nekkoon honorable euh, Rama Bodian donc voilà ñu nga xam ne ay honorable député lañu ñëwoon ngir euh, seet nga xam ne moom mooy Soxna Amy Dia honorable bu baax. voilà tey nga ñëw ci hôpital Abass Ndao ngir seet Soxna Amy ndax gisante ngeen. Euh, jotu ko jotuñu ko gis bi ñu ñëwee vraiment mayuñu fu ñu gisee ki nga xam ne ni moom mooy suñu sœur boobu di Amy juste rek ki nga xam ne mooy yaayam moom lañ nangu mu dem gis ko. Euh, boo gisee nag xam naa mu demee noonu sax parce que état yi nga xam ne ne suñu sœur boobu nekk na ko bugguñu ñun ñu gis ko ba mën a xamal sénégalais exactement ce qui se passe loolu waral na ba tax ñu gis Amy Dia mais de toute façon man li may wax mooy le président Macky bu fekkee moom sincère na si ay propos sorti bii génn bi bi bi mujjee génn jàkkaarloog sénégalais yi daf ne dafa bëgg créer une cohésion sociale dans ce pays dafa bëgg jàmm dikkaat ci réew mi mënul nag bëgg jàmm dikkaat ci réew mi tout temps mu jël benn yaay boo xam ne di ko jiiñ ne terroriste la jàpp ko chargé ko koo xam ne ni mënul sax rëy mbóot ñu ko yaa ni ko ni ko ñëpp xamee nga jàpp ko jiiñ ko loo xam ne ni c'est pas vrai tëj ko ba tey jii nii ba muy dugg elle était saine feebarul dara dalu ko tey jii lii dal ko si biir euh, kon si si si biir kaso bi te bi mu koy dal ni mu ko dalee noonu la dale ñu bëri si ñoo xam ne ni dañ leen jàppoon suñu yaay bay may mën a jëy barke démb Adoura Fall ak Kaolack ainsi de suite ainsi de suite alors dara daw leen bi ñuy dugg mu nekk loo xam ne ni lu ñuy ñaawlu la sama sœur léegi mu ngi koy wax ñoom ñu ngi naan dañuy woote amnistie pour effacer les faits yi nga xam ne amoon na fi depuis 2021 ba 2024 ils ont bien nag euh, recadré lu tax ñu ne 2021 2024 parce que xam nañ ne si diggante bi liñ fi def jàpp nañ ne ñoom mën nañ ko effacer pare dem tëdd nelaw bu fekkee ne jàmm la ñuy woote dañu bàyyi xale yi ñu génn Ami Dia nañ ko libéré mu dellu si ay mbokkam ñu faj ko parce que loolu mooy urgence bi ñuy wax ne ñeneen ñi nga xam ne tamit ñu ngi si kaso yi te tey dara yóbbuwu leen fa lu dul jël leen jiiñ leen tooñ leen ba pare tàppaas leen dugal leen si kaso yi nañ leen libéré loolu mooy dëgg merci beaucoup merci beaucoup libéré Ami Dia libéré Ami Dia libéré Ami Dia libéré Ami Dia libéré Amidia. voilà Thioro Mandela nekk itam koo xam ne jege na lool euh, moom mooy Amidia démb sax gis nañu taxawaay bi nga xam ne am na ko ci Thioro ñu ngi leen nuyu. ñoo ngi leen di fay bu baax. voilà gis nañu depuis boobaat léegi ñu ne soxna Amidia yaram bi dafa xaw a sutante ba nga ko déggee lan nga yëg ak proximité bi ngeen am. donc naqar bu méttee métti démb ba tey jii ba ñu ko yëgee lekk sax mënul dugg euh, ci biir yi wax ma laa nag kaf wala ree Euh, ci loolu aussi may wax ne ñi euh, def lii daanaka dangay jàpp ne amuñu sax xol amuñu xol parce que naqaral nit ñi à ce point dafa mën a ñàkk nit ñi am naqar ba mënatuñoo kaf mënatuñoo ree ndax fii lu jar bakkan lamb lu jar bakkan lamb te euh, question de vie ou de mort la ñuy wax actuellement nit ku feebar bi muy dugg ci kaso bi comme ni ko honorable waxee yóbbaalewul benn feebar bopp buy metti sax yóbbaalewu ko tey ñu nar koo jébbal ay mbokkam ak feebar boo xam ne nii nee nañu bu chronique la boo xam ne day nekkaat ci àddunaam di ko faju loolu rek dafa doy sëkk maanaam fii la ñu mën a yem ak ñoom bu dee kaaw maman Amy Dia fii la ñu mën a yem ak ñoom nanu ko libéré loolu mooy dëkk parce que xol yi fi nekk nii xol yi metti na te nee nañu sunu rongoñ dootul dal sunu dënn ñoom ñu koy gis parce que fii lañu mën a yem ak ñoom nañu ko libeere dem nañu téye nañu ko ba yóbbee ko feebar situation carcérale bi jural ko feebar tey ji jural ko jabet ba mu egg ci 4 grammes ci suukar bu yéeg donc fii la mën a yem nañu ko delloo ay mbokkam ñu def li war mooy faj ko mu mën a dellu siwaat ci ci yor ay doomam mais itam dellu siwaat ci société bi te li maman wax sànq di yaayam ne tey jii pesewul sax lu mat quarante grammes man dama ci am naqar dama ci am métit parce que euh, bu dee vingt deux jours wala vingt trois jours yi ma dund ak moom ci biir kaso bi man xam naa xamoon naa gisoon naa ko ak situation bi mu doon dund maanaam ñàkk laf bi mu doon bi mu doon doxaale ñàkk doole bi mu doon doxaale donc loolu bu ci bëggee boole boo boolewaat ci euh, euh, tey jii jabet ñu bëgg koo delloowaat ci biir kaso bi dañuy taxaw ne ñett duñ ko nangu duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg man nag démb wax naa ko taxaw ba mu sës lu mu jar ñu def ko parce que nit lañ leen di laaj ak ki bakkanam nit koo xam ne lañ leen di laaj ak nokkeem donc fu mu nekk nii bëggatuñu fii mu tëdd tey jii mu jéggi fi lu dul lu dul ànd ak waa këram ñu mën a sax am yaakaaru dem faj ko amatul dara loo xam ne dañ koy commandé ñaanatuñu dara nañu bàyyi jàmbur bi mu dem ñibbi këram dootuñu foogee ay procès liñ koy toppee c'est trop ko jàpp presque deux ans ferme ba jural ko feebar ci kaso bi tey jii ñu xam condition yi mu doon du ci kaso bi ba heure bi te lii ci gën a euh, métti euh, euh, ngóone mës nga dégg maire ami Dia mu ne ngee kenn mësu ko dégg kenn mësul dégg ci kaso bi ñu génn waxal ko dara boobu ba tey mi ngi am bon conduite toog ci kaso bi jàpp ñàmburam suturaam soosu dignitéem boobu mu nekkee woon nañ ko ko delloo tey jii lii ñu ko defal nii war ko àdduna wërngal këpp indi ko ci ci biir hôpital bi tey teg ko fi indi ko ñëpp di ko xamal mënoon naa ñàkk ci ni ma ko xamee ak ni mu diiñee sutura bi mu doon wëyaale tey uññi nañu suturaam nañu ko bàyyi la mu ñibbi ci famille am loolu mooy dëkk fii nga mën a yem ak nit ki te c'est trop waaw doy na sëkk vraiment muñ nañ ba